Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations Un Box Sénégalais, il fait faux 14 régions du Sénégal, à nouveau nous folle, nous avons également chez l'hôpital et du février, nous sommes de cette nous nous nous a aussi erreur judiciaire, nous nous dès de nous on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité on continue gars yi ñu fa seen Moussa Niakhaté ak vidéo bi nga xamné ne gars day woné combien waji lepp la def pour delsu wat mais aussi pour ñeu équipe nationale du Sénégal le retour de Cheikh Kouyaté l'homme aux deux galons Koulibaly qui impressionne aux entraînements et aussi Ismaël Jacobs gars yi yooyu yëpp dañ fa seeni waxtaane mais d'abord ki am na ne donc corow bi kii di Dani Alves mi nga xamné mom la depuis 2015 Dani Alves mi nga xam dañ ko daal di né dañ doon sakku benn jigéen te ko ko nangu ci soxnam sox nak mu doon andal mom nak néna na euh, na fësal na ko nag ci réseaux sociaux yi ak ki Dani Alves qui ramène également moi donc euh, qui dit euh, donc euh, Francis Ngannou ci walum MMA nee nak légui day def boxe anglaise mo confirmé nako ko nak premier adversaire am ba moytuwul Deontay Wilder lay doon Deontay Wilder gars yi ko xamul dem len ngeen xol ko donc nee premier combat am mok Deontay Wilder la fas Donc, ki xamné ne également moy Omarou Ousmane Kamaru Ousmane également nek donc nekone champion du monde MMA ñu dal di koy gagner donc mom nak fimné ni mom ak le français bi nga xamné nak moy donc Cédric Doumbé Cédric Doumbé moko ko doon woon tensé léegi nag nee Cédric Doumbé xawma ma Cédric Doumbé nako nak nag lijjanti ko après man maa ngi ñëw dig xam ki nga xamné également moy wàllum jaamoron jaamoron vidéo ma leen wonoon ñu wala boobu benn ma leen wonoon mu téye ci fistolet gars yi defoon am l'enquête léegi nag dañ ko daanu tolloog juróom-ñetti match yoo xam ne du ko daal basket parce que bu fekkone mom mom moom pistolet bi dañ meun nañ ci ñak sax li nga xam moy carrière mais nak finalement pistolet bi nenañ nañ moomu ko woon benn xaritam moo ko moomoon ki nga xam na moy Erling Braut Haaland tay Haaland a fait du Messi parce que Haaland photo bi boo leen seetlu ko am na benn Messi mu tëdd di nelaw Haaland moom dafa yor balam di nelaw di wane gars ni lay nelawé ak ballon bi nga xam mom la duwol 5 buts ki nga xam ne aussi moy Oussem Aouar wax naa leen d' accord ne day Algérie waaye tamit selon les dernières informations fa ne bu ki nga xam moy donc euh, entraîneur bu Algérie donc ne Belmadi bàyyi mom ba septembre ma entraîné ba dellu soir ci en forme bo mu woyé jamono jooju dinaa mën ñëw parce que bëgguma ñëw te nekk ba en forme loolu lañ wax ki nak également di Akanji Akanji le joueur de Dortmund nga xamné dañ ko transféré du côté de Manchester City dem nak wa UEFA dañ ko jox ñaari passe décisive parce que am na passe boo xam ne wax na moko defal defuko finalement deux passes décisives la ñu moom moo def ki nga xamné aussi gaay bi di Fofana moom xam ngeen ko mom mi gaay donc le joueur donc euh, de lance bi nga xamné ne na ak li nga xamné donc euh, Côte d'Ivoire équipe bi match bi ni ñëw daal gisunu ko ci ah wuñ ko ci donc lool nak xawa a jaaxal gars yi ne moom daal ñu ko ci gis ki nga xam aussi mom moy donc ki di Benjamin Pavard Benjamin Pavard donc mom donc nekkul ci pavé yi dina nekk ci listu Didier Deschamps yi selon les informations même bu fekkee ni Monde bi gay yi amna ay jeexi jax yu amone bu mag sélectionneur bi nee sélectionneur bi da kaa fas yéene di mais aussi amna na joueur bo xam day postuler pour ñëw équipe nationale du Sénégal du kenn ko dul Augustin Senghor <laughs> Augustin Senghor mo nekk ni gay donc xam ngeen soixante treizième congrès bu CAF ak bu euh, FIFA bi dana am fa nga xam ne donc fofu nonu ci euh, Rwanda ñamone match bu ñu amal gis ngeen ko Augustin Senghor mi ngi nii ha ah, donc

solo ki ngeen dit Ismaël Jacobs il est prêt avec l'équipe nationale du Sénégal plus que motivé que d'habitude sax Ismaël Jacobs il est ko entraînement bi goy ak ñàkk bi ak style bu avec bi nationale du Sénégal mais le retour de l'homme aux deux galons qui est Nak Cheikhou Kouyaté Cheikh la ci limu nek nekk ah ba pare ñëw na na bal bi tay Cheikh Kouyaté le capitaine emblématique de l'équipe nationale du Sénégal l'un des capitaines de cette équipe nationale l'un également des hommes forts de Aliou Cissé coupe du monde bi dafa blessé blessure ba moko ko indi tey li mu nekkee mais il avait fait un début de coupe du monde exceptionnel gis ngeen ko fi mi ngi sante Yalla naan ko alhamdulilah de retour sur le terrain donc pour Cheikh Kouyaté respect à lui xamna naa ne soxna yi a beeg ñaar bi toppatoo nañ la fim ne na gaay gars ah, lay wax bonne continuation il est content il est content Cheikh Kouyaté de revenir sur le terrain il est content

Koulibaly le rock tey gars yi lii la nappee gars yi la publier wane né mi ngi ci entraînement waxon na naa yi mi ngi wax né gars waxon na dina ñëw nak nank nag tepp tepp nga la wan man may patron wu Chelsea je suis le nouveau patron de la défense des Blues de Chelsea mi ngi non mais également gars ma lañ ko promettre Moussa Niakhaté bu vidéo bo lañ ko sétane gars da ngeen di bëgg waji il était tellement motivé waron ñëw équipe nationale du Sénégal ñëw am blessure dem Nottingham Forest blessé reprendre entraîner wu ba tey di mu gissat le bout du tunnel dina leen won donc lien bi nako def ngeen dem tamit xol ko vidéo mu ci nga xam moom mais Moussa Niarate, exceptionnel le gars là vous le regardez vous allez comprendre pourquoi il mérite de jouer pour le Sénégal et que jean yi le Sénégal de jour la ko xam ne Sénégal fi ñu talent jouer pour il est motivé comme également les tous les joueurs de l'équipe nationale le, le sont plutôt tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal gars c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir il aime de like woy il abonner on avance ensemble dans la magie de eSport TV gars yi chef.